ñu ñëw fii démarré fi suñu campagne démarrage boo xamante ne wutuwul lenn dul sàkku seen ñaan. bu ñu taxee fii ñoom di wax àdduna di ñu dégg grace à ñii nga xamante ne ñoom ñoo fi toog kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan li nga xamante ni mooy sunu patrimoine muy PDS. di patrimoine ci humanité bi yëpp parce que léegi Abdoulaye Wade moomatul PDS ñun moomatuñ ko àdduna moo ko moom ñu bëgg ko na saxal ay saay-saay mbubboo woo frère fraternité pour ñëw na saxal suñu parti ñu jël décision ñun ci ndimbalu yalla ak katanam taxaw ni loolu du am waaye ñi nag dañu ci inspirer waaye aussi jox ñu ci fit ba tax na tey jii ñu mën a taxaw li nga xamante ni mooy coalition bi nga xamante ni mooy soppi Sénégal wutuwuñ ci lenn nag lu dul sauvegarder li nga xamante ne mooy héritage boobu nga xam ñun ñëpp ñoo ko moom sénégalais yëpp ko bokk africain yëpp ko bokk humanité yëpp ko bokk waaye sauver l'honneur et la dignité bi nga xamante ne mooy bu Ablaye wad bu partem ak bu militant am ak responsable parce que nak buñu bayé li nga xamante mom mo am pendant 12 ans nit ñi nasaxal suñu parti bëgg étêté tej ñi ray ñi duggal ñi ci kasso bëgg a tayaat ñëw àndaat ni ñom ñoo bax ñom ñoy ñom ñoy ñëw ëmbaat suñu parti pour dem naan dañuy dem ay élection ci ko xamante ba muy jóge fi yow da nga ni ko woon baaxoo fi ñun jàpp nañu lolu dañuy permettre ñooñu ñu jël seen revanche Abdoulaye Wade te loolu inshallah allahu rabi moo tax taxaw nañu l'histoire na retenir que ay doomu Abdoulaye Wade ay njabootu Ablaye Wade bi ñu bëggee na saxal li nga xamante moom la liggéey taxaw nañu kon ñu ngi ñaan sénégalais yi fépp fu ñu mën di nekk ñu xam ne li ñuy def ñoom ñoo ko moom parce que ku ci nekk am na loo Ablaye Wade defal soit liggéey na ci réew mi nga bénéficié wu soit liggéey na pour nga am liberté soit liggéey na pour nga xam ay sa droit am say droit mais liggéey na aussi pour nga xam sa bopp gëm sa bopp kon ñu ngi ñaan sénégalais yooyu yëpp fépp fu ñu mën di nekk ci àdduna nañu def le 17 novembre ñu jël seen carte dugal ko ci urne bi votel li nga xamante ne mooy coalition bii bu baax bi mooy coalition soppi Sénégal ñii composé liste bi dama ci juj ci kenn rek muy président Doudou Wade ñëpp xam ko ci xam-xam ñëpp xam ko ci li mu mëne li nga xamante ne mooy assemblée nationale Diko ko jàngale ba ci bitim réew ñooñu ñoo fas yéene dele dem assemblée ñooñu ñooy njabootu Ablaye Wade ñooñu kenn du leen dicté fu ñuy jaar ñooñu kenn du leen wax lu def ñooñu ci justice la ñuy dox ñooñu ci dignité la ñuy dox ñooñu ci transparence la ñuy dox ñooñu ci liberté la ñuy dox ci responsabilité la ñuy dox te ñooñu incha allah ñoo dem assemblée pour taxawu leen jàppale leen pour que ëllëg si biir suñu réew mën a nekk réew boo xamante ni bu jub la bu am am dignité au plan international